président de la république représente ko noppee Colobane ak Fatick du ñaar du version du Kelle du président de la république bala yaa mu ñëw sant président de la république bi nga xam mooy déwénu sollicité à la carte de construit en 1902 bi sama nekkoon xam naa yàlla lay lay mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF le président ko jaar 1964 ba 1982 ba 2012 Macky Sall depuis 2012 ñu xam ñu xaar ma xam kii woote ba ko jëf président la république ko kaloo doon ko lew salaamaaleykum ma ni suqi nga fas yi ah ndax fas yi suqi nga leen xontu nga leen oui ma sëñ ndax fas yi suqi nga ko laa wax. sëñ bi suqi fas yi soxal di leen. man woy ma fi nga wax fi nga dugg du foofu. nga fi ma. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam kooku. man la Baye Mandione. yow la. man la Baye Mandione dëkk Écurie Lansar. Baye Mandione Baye Mandione lu war a sawati ci biir palais bi. président la ma soxla woon. président dafa génn. kan laa mën a wax ma yóbbante. man mii. waaw ne ko. waaw. ngi gis keroog bi ñu invité mbër yi mais ñoom lu ñu war a wax dëgg waxuñu ko. waaw lu ñu war a wax na ni. waaw parce que Macky Sall. Hmm. mu ngi nuyu jox jox jox musiciens yi ñaari yoon. waaw ñun booba léegi ñu ngi tekk ñu toog di xool barka baay laay gis nga xoolal bu deful comme ni ñu def médecin ñun dinañ jóg te mosuñoo jóg. mosuñoo marche mosuñoo wax dara. mu ngi jël dimbal di ko dimbali ñi nga xam te ñooy musiciens yi te ñun mbër yi kenn waxul dara. Hmm. ba mu tëjee làmb ji yàgg na. waaw mbër yi nga xamante ne ñooñu invité woon TFM ñooñu waxuñ lañu war a wax waa li maanaam yow yow yow mi am fit daal boo toogoon loolu ngay wax buñ buñ leen joxul ngeen yëngal waaw dañu yëngal koy loolooy sa wax yow loolu may ma wax ah barka bàyyi laaj man amul lu may ragal maanaam loolooy sa kàddu yow maanaam buñ leen joxul na jox mi force barka Seydina yow xanaa dégg maasa dégg nga la maasa waaye bàyyi ma nga maasa bàyyi ma yoon ma lu am li ma wax fulla gu mat sëkk la li may wax fulla gu mat sëkk la ba boo ma xamul nag man la Baye Mandione dëkk am fit dëkk kër Lansar dama di Baye Mandione ak boo ci caaro yi boo fi yëngalee wala nga fi marche def nangam nangam lu méngoowul ak mesure barrière yi on va te boucler barka Baye lay boo fi ñëwee man maa lay boucler yow xamoo la sax la ngay wax yow. yow xamoo la ngay wax ñun boobu léegi ñu ngi tekk yëngatuñu defuñu dara nga di ma wax yow da maa a la koy dañ jox dañ joxaat parce que jox ngeen artiste joxaat ngeen te ñun daanaka ñoo bokk milieu bi waaw ñam ñamaat fu ñëppay ñam ñamaat votre correspondant peut-être du baax na